di jaale ñi ma nekk yëpp ci plateau bi yàlla lu mu def loolu moo gën parce que du neen ñi nga xam ne ñoo fi daje woon di fi liggéey tey ñu dajewaat bi hasard moo ko def muy Pierre Edouard Faye Adama Kandé Mamadou Biteye Lamine Samba ak man ñëpp ñoo nekkandoo woon di liggéey euh, d'abord li may commencé mooy wax tey yeewu bu naqari dañu yeewu euh, consternation ak tristesse moom la ñu yeewoo bi njëgee xibaar yi mu bett ñu lool Euh, ci koo xam ni euh, suñu kilifa la suñu kilifa la ci fànn yu bëri ndax man damay jël sama cas moo ni man euh, bi may ñëw fii maa nekk deuxième année CESP bi mais li ma doon jàng CESP bi yëpp fii laa doon bu doon paaka ma ni fii laa ko daase parce que bu du loon si Lamine xëy na amaana sax tey du ma nekk RTS di ko liggéey parce que moom moo ma jox visibilité jox ma visibilité ci rajo jox ma visibilité ci télé sii Sidi Lamine man sama digganteeg moom dafa dafa nekk loo xam ni dafa spécial te xam naa ñi fi toog nit ku nekk am nga sa histoire bu spécial boo ma nettali sa digg ak Sidi mais man dama bëggoon rek dama jóg tay pour témoigner ci ñett ba ñeenti affaire benn bi mooy man bi may ñëw fii nekkoon naa si beneen groupe de presse di liggéey après benn moment ma arrêté mm-hmm. ñaari weer laa arrêté mm-hmm. Sidi Lamine woolu ma dugal ma ci des sport bi ma fekk fi Adama Kandé ak Papis Diaw yu ak ma bu baax a baax aussi yaatal ma bi ma ñëwee def deux mois fekk na maa ngi nekk jigéen wérul mais si di la ñu doon terewu ko mu defal ma contrat bu spécial quoi en hmm. tant que euh, étudiante hmm. euh, stage la mais man dama ni contrat bu spécial la ndax li mu ëmboon moo tax dañ hmm. ko defee sax dama ragal man leen ah yéen man sama état yi est-ce que dinaa mën assumer lii Aliou jaay moo nekkoon suñu patron mu wax ko Sidi Lamine ni gis na loolu mais moom li ko ñor mooy liggéey bi may def encouragé ko mu ni te loolu du handicap donc man tamit ma def ci sama jom beneen histoire bi mooy bi ma wasinee dama wasin comme ci euh, loi du travail aw ma woon droit am congé ñu tudd xale bi rek xale boobu am na 15 ans léegi ñu tudd xale bi euh, xam naa sax bu ko déggee dina ko naqari bi ñu tuddee xale bi semaine bi ci topp ma ñëw liggéey si dama def journal des sports di wàcc escalier bi rek yàlla def ma daje ak moom mu ni ma ah, maa ni ko ah dama liggéey mu ni lu tax ma ni ko déedéet man aw ma droit congé maternité man ma dama ni may naa la ba deux nga toog ba retrouver sa ay force bu fi ñëwaat waroo génn dama nga toog te damal koy fay xam nga loolu mënuma ko bañ a témoigner tey beneen bi ci tegu nag mooy jour di ñu may jox sama diplôme Cissé bi Sidy Lamine dafa defee surprise bu rëy ñi ko fekk ñëpp dañ koy seede El Hadj Thierno Dramé léegi suñu réunion rédaction mi ngi koy fàttali mhm. keroog bi ñu ma woowee Sidy Lamine moom moo ma jiit fi ñu may joxe diplôme xëcc ma téye sama doom bi daal ni kii sama doom la def ko comme doomam. da dal nañu déggante mu may conseiller fonk ma lool lépp lu xew Walfadjri mu boole ma ci mhm. donc loolu mun ma woon a bañ a ñëw def témoignage boobu ci Sidy Lamine mhm. ndax man dama ni Walfadjri du jaar-jaar rek ci man mais dafa bokk sama vie ndax buñ nekk Kumba Jaxate Maar Walfadjri lañ ciy nekk ndax fii laa siiwee mhm. fii lañ ma joxe confiance am na nag boo xam ni dama sax naroon fàtte mooy bi ma RTS soxlaa bi ma Babacar Diagne débauché man bi ma waree dem dama ni du ma ko ŋaan du ma sax tontu tànk dafa tukki woon ma xaar ba mu ñëw ma waxtaan seeg moom ba ñu déggoo ci bi ma waree dem préavis bi RTS fay Sidy Lamine daf ma ko may donc xam nga kooku li ma suñu diggante dafa am solo mhm. te bi ma fi jógee taxul mu bàyyi ma fu ma gis yëkkati ma ba ci kaw bu ñu déggante téléphone bu may conseiller di ma waxal li baax wax dëgg yàlla loolu laa waroon a seede tey li may wax rek mooy yàlla ko yàlla yërëm te lii mu sumb man dama ne Sidy ambition nekkul sax ci moitié bi léegi nag ñun ñi fi jaar ñëpp ak ñeneen ñi parce que groupe de presse yëpp ñi jaar Walfadjri ña nga fa li may wax mooy ñun ñëpp ku nekk ci li nga am ci li nga mën nga jàpp ci njabootam aussi jàpp ci état bi autorités yi ñëpp di jàpp ci ndax euh, li Sidi Lamine sumb ñu mën ko ko àggaleel ndax xam naa ni moom ndëbatam ci Sénégal àggul ñàkk nañu koo xam ni ku doon euh, ku nekkoon gardien presse bi gardien démocratie Sénégal Euh, dina ñu wéetal daal ma koy ñaanal yàlla na yàlla xaare ko àjjana di ko jaale njabootam yëpp di ko jaale ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi nekk ci presse bi particulièrement ñi nga xam ni jaar nañu Walfadjri jërëjëf soxna Kumba wax ji rafet na wax ji am solo la yëkkati du ma ko ci ki nga xam ne moom El Hadji Sidi Lamine Niass gannaaw